sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi assalaamu taala wa ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu guñ def ñoo ngi nuyu ak di ziare sëriñ bi di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko ci sunu kanam te may ko fan wu gudd ak wér bam mboolem naalam yépp dañu ànd koog moom mbokk yi ñoo del si tey jii ngir fàttalante ci lu war a yitteel mboolem jullit yi la koy laytaay mooy jullit su lu baax war na cay xiirtal mbokki jullitam su gisee safaan ba itam war na leen koo moytandik lool te loolu dugg ci bunt bu yaatu boo xam ne borom xam-xam yi yàgg nañ koo yàgg nañ ci bind yàgg nañ ci waxtaan te mooy babul amri bil maaruf wa nahyi anil munkar digle lu baax tere lu bon di lu sunu borom yàgg santaane ci wal takum minkum ummatun yad'una ilal xayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar ndax waxtu wu nekk ñaari yëf mooy ànd di làng ci àdduna te mooy lu baax ak lu bon lu baax nag jullit moom la war a xëntewoo di ko wër fu ko gis mooy ci jàpp ko waaye lu bon tam war na koy moytandiku moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi xamoon dayob digle lu baax ak tere lu bon yeggoon ci wax ne yéen a ngi nii te jublu ci xeetam bi da ngeen di sax ci digle lu baax ak di tere lu bon su ngeen ko defut su ngeen def lu baax terewuleen lu bon yàlla mën naa xiirtal ci seen kaw ay nit yu yées ay jikko ñu baaxut ñooña di def ci seen kaw lu leen neex te du ngeen ca man dara te bu boobaa sax ña gën ci yéen mën nañoo tàllal seeni loxo di ñaan borom bi waaye boobaa borom bi nee na du wuyu du nangu ñaan googee la ta'murunna bil maarufi wala tanhawunna anil munkari aw la yusallitanna allahu alaykum siraarakum fa yaddoo xiyaarukum fala yustajaabu lahum loolu nag ku ko dégg xam ne kon digle lu baax am na solo waaye tere safaan ba itam am na solo te waxtu nekk itam seytaane laanahullahu ci luy lor doomu aadama ak luy tasaare ak mbon ci lay xëy ci lay gont moo képp ku koy jàppale moo xam nga nit wala ngay jinne moo tax sëriñ bi radiallahu anhu daan muslu ak di sàkku ci borom bi tabaraka wa taala mu musal ñu ñëpp ci ay wu tukkee nit ku gëmul yàlla ak ay wu tukkee ci seytaane moom la waxoon ca matlabul fawzayni ne waltaqina sarran nada nasara wal yahud wa sarri iblisa wa kulli di juhud waaye nag waxtu nekk mbon googu fañ koy gën a séentoo mooy ci yéefar yi nga xam ne gëmuñ yàlla tabaraka wa taala te waxtu nekk seen bon googee ñu bëgg mu tasaaroo ci réewi jullit yi waaye lay gën a waral muy tasaaroo lenn ci jullit yi nag buñ amee ak càggante ba yëguñ ne sax ña ngi leen di fexeel fexeel ba yëguñ ne sax yéefar ya ña ngay bëgg ci ñoom aw ay waxtu nekk waaye bëgg luñ leen aw yiw léeg-léeg sax jullit yu sàggan yooyu man lañ leen caa jàppale ca tasaare googee ñuy tasaare lu neexul yàlla ak jikko yu bon ci kaw suuf moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu yàgg ñoo moytandikuloo naw ku gëmut yàlla naw am nasraan ak gëm ko ak yaakaar ne fum jëm rek fala yàgg nañu ko moytandikuloo ndax yeggoon na ci wax ne am na ci gaañi ñoo xamante ni mën nañ ne ay jullit dañ sax de waaye suñ jàkkaarloo nasraan te jublu ca tubaab ba gëmut yàlla dañ koy nawa naw gëm ko lool ba yaakaar ne dañoo jàkkaarloo malaayika mu jóge ci borom bi tabaraka wa taala moo taxam ne wa minhum man in yaran nasraani yaxsibhu min malaayika rahmaani moo tax nag li ñu bëgg a jëm te mooy ay jikko yu bon yoo xam ne mi ngi tasaaroo tasaaroo na ci réew yi tubaab yi nga xam ne gëmuñ yàlla lawtan tam nar a yegg si suñ réew yi nga xamante ni dañoo gëm yàlla moo tax am na juróom mbir yoo xamante ni diine ju mas a wàcc danga ko fonk di ko watloo nit ñi bokk na ca diine bokk na ci am xel bokk na ca alal bokk na ci aw askan bokk na ca bakkan wattu diine moo taxoon mu ne woon yonent bi alei salaatu wasalaam ne woon man baddala diinahu faqtuluhu ku gëm yàlla ne ab jullit laa ba bis mu ne dama tubbi nee na lay ab àtteem bu del tuur gannaaw te tuubut mooy lay àtteem mooy rey ñu rey ko kon bëgg nañu téye suñ diine téye suñum xel tam moo tax mu araamal naan sàngara ba duñ kayang kayang ci kaw mbedd yi bëgg ñu wattu alal tam moo tax mu araamal sàcc ak anam gu ñuy jële alal te teguñ ko ci yoon bëgg ñu wattu askanta moo tax mu araamal njaalo aku ngóor jigéen bëgg ñu wattu bakkan yi tax moo tax mu araamal ñuy rey bakkan te teguñ ko fenn lii nga xam ne moom la waxtaan wi jëm tey nag mi ngi jëm ci jëf ju ñaaw boo xamante ni tasaaroo na ci àdduna si di lawtan ba naar a yegg si suñ réew muy li ñuy wax njaalo ak li ñuy wax ak góor jigéen te sunu borom tabaraka wa taala dafa wutaloon doomu aadama foo xam ne ci la bëgg buñ dee yokk askan wi di a yokk ñu jaare foofee ndax dafa daganal ci ñoom ñu nekk wa ñaari way dencante diggante góor ak jigéen fonk ba wutal ko ay ponk wutal ko ay sart wutal ko yoo xamante ni soo amee mu ne wér na su amut mu ne wérut yooyu yëpp ngir bëgg ñu encadré li ñuy wut aw li ñuy wax aw askan bam tege ci aw yoon loolo loolooy tax itam mu araamal moom borom bi tabaraka wa taala li ñuy wax njaalo ak li ñuy wax ak ngóor jigéen boole ko itam ca ñaaw téef ya gën bon muy njaalo ak ngóor jigéen ngóor jigéen nag bokk na ca ñaari góor yuy dencante ak ñaari jigéen yuy dencante yooyu képp ku am xel da nga xam ne yuy yàq lu yàq le yàlla moo ñaale woon doomu aadama cig set la ku am xel ku nekk dana xam ne ñaar yooyu muy njaaloo ak ngóor jigéen ak nuñ ko mën di tuddee tooñ gu mag a mag guy wàcc ci kaw doomu aadama tooñ googu nag diine jenn ju ma sa wàcc ci asamaan musu koo nangu moo tax nag e, ak ngóor jigéen wala ñaari góor yuy dencante wala ñaari jigéen yuy dencante moo gën a ñaaw njaalo benn na ci baaxul nag waaye sax moom moo gën a ñaaw njaalo moo tax alquranul karim nettali nañ fu baree bari ci ay ci al ci biir saari alquran ci li daan xew ca ña daan def ñaawteef yooye bokk na ca nitu yonente yàlla luut alayhi salaatu wasalaam ñoo ñoo xamante ni sunu borom daf leen a alak ngir ñaawteef yooyee ñu daan def buñ toppee ca saaru suuratu sonra ma ngi fay waxe ne atatuuna dukraana min alaalamin wa tadaruuna ma xalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aadun yonent yàlla luut mu nga jàkkaarloog nitam ñooñee daan def ñaawte yooyee naan leen xanaa lu leen dal ba ngeen bàyyi fi e, e, jigéen ñi nga xam ne lew nañ leen di seeni soxna ngeen bàyyi leen fi di ànd ak góor ñi góor ak góor di ànd loolu dara gënu koo ñaaw xanaa yéen kay ay nit ngeen yoo xamante ni da ngeen a jéggi li yàlla daganaloon dem ca araam mu waxaat feneen ca suratul araf mu wax ne loolee nit loot daan def day te mooy ak ngóor jigéen ak xaajam ak noo ko mën tudde ñaaw teef la woo xamante ni kenn mësu leen caa jiitu ngir ñaaw gam ñaaw waluutan id qaala li atatuuna alfaxishata ma sabaqakum biha min ahadin min alaalamin lii ngeen di def muy góor di ànd ak góor ak nu ngeen ko mënta tudde ñaawteef la woo xamante ni yéen a ko njëkk a def ci àdduna ci aw ñaawteef loola kon nag doyoon na rek ci ku ko di ab jullit lole bu dee boo ko doon def nga ba ko soo doon gis ku koy def nga jàjj ko soo déggee ne mi ngi ñëw ci sam nga def lu sa kemtulaay kattan ba du fa dugg ba mañ ba mu fa tasaaroo itam sunu borom tam yëmut ca loola waaye dafay yedd ña daan jëf-jëf ju ñaaw jooje ba fa yeddaa nga yem neen innakum la ta'tuuna rijaala shahwatan min duni nisaa bal tum qawmun musrifuun man daal nu ngeen fi bàyyee góor ñi nu ngeen fi bàyyee jigéen ñi leen lew muy di nekk seeni soxna dem di ànd ak góor góor a góor di ànd di nekk way dencante di sëy loola daal yéeme na yéem goo xamante ni daal ku koy def jéggi nga dayoo ci ak mbon sunu borom itam tabaraka wa taala bam ñu leeralee ñooñee fañ daan jaar leeral na ñu itam mbugël ma leen ca fekk ndax ma ngay wax ci aayay juróom-ñett fukk ak jàpp juróom fukk ak ñaar ca sóoratu Huud ne fa lamma jaa amruna jaalna aaliyaha saafilaha wa amtarna alayha xijaaratan min sijjil mandudin musawamatan inda rabbik wa ma hiya min addalimina bi baid nee na ñooñee bañ nekkee ca seen bon googee te tëkkoo ba dama suuf ci seen kaw fab taw boo xamante ni tawam mbugal la boo xamante ne ay xeer yu jóge sawara nekk ban bu tàng jër yoo xam ne bu ci nekk dañ ko wutal ga ma sànni leen ko bañ dee waaye loolee nag yéefar bu jaar fa mu jaaroon tam bu soobee yàlla loolee lan daloon da leen dal kon ñu xam ne kon ñaawte foofu rëy na waaye mbugal mi ci sunu borom gàll itam rëy na kon lu mat a bàyyi xel la waaye lu mat a moytandiku la allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha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 ann muhammadu rasulullah ashhadu anna muhammadu rasulullah hayya ala salam bismillahi irrahmani irrahim kon loolu aju ci jëf yu ñaaw yu jëm ci njaaloo ak ak ngóor jigéen noonu la ab atteem leere ci alquranul karim waaye buñ demee ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam danañ fekk ne ay yax yu baree bari ci wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yoo xamante ni dafay ñaawlu jëf jooju di rëbb itam ña koy toggoo bokk na ca la jaabir radiallahu anhu nettali woon ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon li gën a ragal ci li may ragal ci sama xeet mooy seytaane may man leen ba jëf jëf jawaa nitu Lóot daan def mooy jëf ju ñaaw joojee te mooy ak ngóor jigéen inna axwafa ma axaafu ala ummati amalu qawmi lootin kon nag mbir moo xamante ni bokk na ci la yonent bi aleyhi salaatu doon bàyyi xel bane bokk na ci lim gën a ragal mu dal aw xeetam mooy ñu jaar ci li ñuy wax ak ngóor jigéen loola rëy na mu waxaat feneen moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci loo xam ne ibnu abbas radiallahu anhuma moo ko nettali ne anna nabia sallallahu alayhi wa sallam qaal allahu man amila amala qawmi lut laana allahu man amila amala qawmi lut ba wax ko yoon mooy sunu borom rëbb na koo xamante ni ma ngay jëf jëf jënnitu loot daan def te mooy ak ñu waxee ak jigéen rëbb mu ci borom bi nag mooy kuñ génn ci yërmande yàlla tabaraka wa taala te yërmande yàlla ku ci génn rek safaan ba nga jëm wala yaasu billah saxaaba itam ridwanullahi taala alim ajmain ñoom ñëpp dëppoo woon nañ ci ne ku def jëf ju ñaaw jooju benn nga njaaloo wala nga def li ñuy wax ak ngóor jigéen wala lii xew ci jamono ji muy ñaari góor di dencante wala ñaari jigéen di dencante ñoom ñëpp dëppoo woon nañ ci ne loolu lu araam la jëf ju ñaaw la boole nañ ko itam ca bàkkaar ya gën a mag moo tax nag sëriñ Tuubaa radiallahu anhu moom itam ci ñaari téereem benn bay mu nawwiru sudur benn ba di mu layyinu sudur bu ci nekk tudd na ñaari jëf yu ñaaw yooyu ñaawlu ko itam soññ ñun ñëpp itam ñu sori ko te bañ koo def te bañ soññi képp koo xam ne ma ngi koy jege mu waxoon ci Munawwir Sudur ne zinan liwaatun bi furujihim faqat xussa fa man maala ilayhima saqat nee na pëy am na ñaari mooy yàlla yu mag yoo xam ne mën na koo def ci koo xamante ni sunu borom mu la benn ba mooy njaalo benn ba mooy ngóor jigéen nee na fa man maala ilayhima saqat kuy sàggan ba jéng jëm ci ñaar yooyu jëf leen ñoom ñaar yëpp wala nga jëf ci benn rot nga rot nga nag ca rot nag daf ko lëm waaye du du baax mu waxoon ci mu la ñu su itam ne xussa zina bil farji ma liwaati fahfazhuma hudita lissalaati nee na pëy dañ ko jagleel ci mooy yàlla yi nga xam ne mën na koo def li wax njaaloo ak ngóor jigéen nee na kon nag ñaar yooyu na koy wattu ba bu ci tàbbi soo ko defee ñu ñaan yàlla mu teg la ci siraatal mustaqim kon nag àttem njaaloo ak góor jigéen mi ngi noonu leer na ñi ci alquranul karim ak ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ci mbindam sëriñ tuuba loo xam ne nag jëf ju ñaaw la alquran rafetlu ko sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam rafetlu ko sëriñ tuuba ñëw fedd li ko ne ma ko tere ñu ko ñun ñëpp kon noo ngi ñaawlu bépp jéego buy tasaare mbon bon yooyu fii ci Sénégal ak fu judul Sénégal rawatina ci biir Sénégal ak ku ko mën a tasaare moo xam gouvernement la wala ay kuréel ak fu ñu mën a bàyyikoo ci àdduna ndax Sénégal réewam ay julit la ay julit ñoo ko dëkke te ñoo fi ëpp kon war nañ leen a bàyyi xel muy benn ku ko man di def ñaawlu nañ ko ak foo man di bàyyi ko ku ko mën a favoriser ak di ci soññi nit ak ko man doon ca njob baxtal la ba ca suuf itam def nga loo xamante ni rafetut rawatina ci réew moo xamante ni ñi fi ëpp ay jullit lañ ñaareel ba itam ñoo ngi laabiire bépp jullit moo xam muy góor wala jigéen ak képp ku am xel ñu ànd ñoon ñun ñëpp nag xir dolli suñu xir ci lépp loo xamante ni njariñal jaam yaa ngi ci ñu gën koo xante woo di ca jëm suba ngoon lépp loo xam ne njariñal réew mi mi ngi ci ñu jëm ca waaye lépp luy lor jaam yi di lor réew mi itam ñu sori ko te bokk na ca nag ñu sori ñaari jëf yu ñaaw yooyu te ba ca jiitu mooy a ngóor jigéen ndax moo gën a bon njaalo comme niñ ko jëkkee waxee ñetteel ba noo ngi taxaw ak di jàppale képp kuy xeex njaalo ak góor jigéen ci milem réew ak képp kuy xeex sëy ñaari góor wala képp kuy xeex sëy ñaari jigéen ndax yooyu ñett yooyu yëpp benn ci jagut te yéefar yu mag yi ñoo ko tàmbali ca seenam réew te képp koo xamante ni doya di nga wala nga sàggan ci biir jullit yi ñu xëcc la ca kon nag ku képp ku jog ngir xeex loolu bañ a tasaaroo ci biir réew jullit ñi rawatina ci réewam Sénégal mii muy njaaloo ak góor jigéen ak ñaari góor yuy dencante ak ñaari jigéen yuy dencante loolu nag xeexal lislaam la xeexal lislaam la ndax lislaam moo ko njëkk a tere te ku xeexal lislaam yaa ngay xeexal alquran di xeexal sunna di xeexal njàngale mi nga xam ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak nit ñu baax ñëpp ca lañ xëy di ca gont ñetteel ba wala ñeenteel ba ñoo ngi ñaan ñëpp itam ñu gën a farlu ci tasaare aw yiw ak ci diggante nit ñi ak jëmbat jikko yu baax itam ci biir nit ñi rawatina ci biir ndaw ñi te jëfandikoo mboole moyen yi nga xamante ni ku ca jaar mën a tasaare aw yiw ak ngëneel ak jikko yu baax te sori lépp loo xamante ni itam wala bépp jumtukaay boo xam ne itam day tasaare ak mbon ci biir xeet bi fii nag duñu fi wax wala ñuy jot lu sëriñ bi diglewut wala lu ko soobut wala lum àndut ndax mooy sunu kilifa ñun ñëpp kon luñ fi wax rek nañ xam ne daf cee ànd nañ xam na ko itam te bëgg na itam mbooleem ñi ñi nga xamante ni ñooy jullit yi tënku ci loolu rawatina mboolem taalibe yi kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala ci yërmandeem mu simbirtal yërmandeem ak njubam ak listiqaamam ak wér te wattuñu sunu kilifa gi yàggal ko fi lool te ko fan wu gudd ak wér te may ko ñun ñëpp ba mu yeggale mboolem naalam yi dañ ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu an laa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 الحمد لله الذي وسعنا برحمته الشاملة وبلغنا بمنه الأزمنة المباركة الفاضلة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده الأمي الأمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلوا واصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا وأكثروا من الصدقة ترزقوا وآمروا بالمعروف تحصبوا وانهوا عن المنكر تنصروا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن الخبور والتأهب ليوم النشور ولا تفرطوا في جنب الله فقد علمكم كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين وأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين الحمد لله الذي أشرق أنوار اليقين في قلوب من شاء من من العباد ونشهد أن لا إله إلا الله الكريم الجواد ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسوله الذي بنوره أضاءت الأغوار والأنجاد أما بعد فيا أيها الناس إن آيات كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا تزال تدلنا على أن الخير كله في الانقطاع إلى الله والإعراض عن كل ما سواه والمسارعة إلى ما ينال به رضاه ومن أفضل ذلك الصلاة فإن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد ومن أجل ذلك تتابع المتقون الغدو والرواح إلى المساجد حافظوا رحمكم الله على هذه الخيرات وعضوا بالنواجذ قبل الفوات فتح الله لكل لكل خير بصيرتنا وبصيرتكم وطهر من كل شر سريرتنا وسريرتكم آمين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar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 الله أكبر الله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 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.